maaram ndooy ndooy ndooy maali maaram ndooy ndooy maali maaram ndooy ndooy waali mi ci mbaale doon naa la. asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu les Sénégalais de la diaspora yi ñuy xool partout dans le monde di nuyu waa Dakaractu di ko njëkkee si suma frère suma xarit sama jëwriñ Serigne Diagne xam nga moom ñoo bokk Daaru Salaam mais moom mooy sama jëwriñ may taalibeem di nuyu waa Sénégal yëpp tey nag bés la boo xam ne occasion la pour mu souhaiter. mes meilleurs à tous les Sénégalais euh, góor jigéen Mak, ak ndaw di ñaan Yalla, fi 2020 nous at moo xam ne atu la atu à atu réussite atu koom atu vraiment euh, tay occasion la bo xamné man presque ça fait 3 ans ni yalla yàlla day dogal euh, fête fête des fins d'année duma ma fekk Sénégal donc ren ñu décidé né dañuy tok fété ko ak sunu wa dëkk ma ci remercier wa mairie de la ville ku ci melni madame la maire sunu yaay Souam El Wardini euh, mu def nak lu am solo parce que rew mënul dem sans culture comme ni ma koy waxé donc ñun Afrique am nañu euh suñu suñu matière grise donc am nañ ressources naturelles mais nak, mënuñu dem sans culture culture bi mooy suñu base et que culture bobu tay euh, ku ko ñu ci dimbali di ñu ko di ñu ci defal ay djégo rek vraiment lolu duñu duñu duñu def assez de le remercier donc tay mu def fête de fin d'année may ko la ville de Dakar donc concept bi muy Dakar propre kon je pense que ni tay occasion le jeunesse bi famille yi ñëpp doxantu ci ñew ñu dajé fi nga xamanteni tay mooy euh, place Obélisque nga xamante ni tey vraiment ñun ñëpp fi la ñuy dajee euh, taalandoo taalandoo fëy xam nga ndakaaru leer ñu woyal leen donc gis nga ça ça démarré depuis hier am na ay suma rek artistes yu fi nekkoon tey aussi ñun ñu ngi fii donc suba aussi am na yeneen activités yoo xamante ni dina fi dinañ ko amal pour ndakaaru mën mën a bëgg mën et je pense que ni occasion la ñun ñu profiter souhaiter ñëpp une bonne heureuse année lancer aussi suñu message suñu message euh, soriwul mooy la jeunesse consciente quoi liguer rek teg ko ci jub ak xam nga euh, ngor donc parce que aduna, l'or, rek moo fi am solo jub ak ngor looy am am ko ci ngor boo tegoo si yoonu donc lépp loolu liggéey ñax ko rek yaa ko moom. waaw mais loolu kay lool loolu mais rakk ji loolu kay kenn waxatu ko loolu moom mooy géej gi am na ndox bu saf sàppa xol tey kay moom moom moom fi moom dañ koy ëlbati. <laughs> ma yaay tey ma di la woo sama yaay yaa jàll fonk naa la jiit naa la joobe naa la wuy naa la ay waay dama ma ci siina yi waali mi ci baale E aí, boa, e aí, boa, e aí, boa.